assalamualaikum sama gaay waaw cheikh bi del si waaw di leen ziar yéen ñëpp ci weeru koor wi di leen balu ak di leen bal ak yéen ñëpp kep koo xam mës tony. laa tooñ bu dee tooñ naa la maa ngi lay jéglu boo ma tooñee baal la ko ngir ngir wi waaw ñi ngi ci di wax toll rek ah ak situation buñ mën nekk rek dañuy ñëw di waaw

fasuma yene di sosal ken ñaanuma yalla lol loolu taxuma tok fi loolu taxul may lok ak yene di wax looloo tax ma di di balu ak ndax euh, dom adam mom njumte fi lañ ko fekk fi lañ koy bayyi waaw li tax nag day ma delsiwaat euh, ci mbirum euh, waa ji ñuy wax asan Diouf newon na len fi duma tuddu trom waye nak ka nga xamne mom la ko moy muy sama ndey hmm? mu mel ndayam joju jooju soxna loo ma gis video bi nga xamne si mo tangal sama yaram ba video bala ma jàlloon ci la ba fas yene continuer wat tay di ci waxat waaw muy ñi nga xamne ño encadrer won wala yaakar nañ ne Assane ñom ñoko ko won lolo tax ma di ci ñew te boy ñew di wax deug da nga wara tuddu la ngay tuddu jaar jaar moo tax ma ñaan soxna soosu ne ko may ma mu ne ma kët mën naa la ko may waaye nag bu ko wax lu ñaaw man nag lu ñaaw musula bokk samay mbir musuma saaga fa suma yéene saaga fa suma yéene di wax lu ñaaw waaw man nag maa ki xam maa ko doon dóor démb ak bërki démb tey nag dellusiwaat di ko défendre waaw lépp loo gis ci àdduna dafa am des raisons dafa am lu ko waral waaw ndax su ma doon attaqué nit ki ba ñii ñëpp contrôle ma ci loolu hmm? ba tey ñu gis la ma leen wax lépp nekk ak dëgg hmm? ñooña nag tey ji ma dégg ñu ne ca suuf di xuloog di xeex ak lépp te situation Assane Diouf amul lenn loo xam ne soppi nañ ko fa lu dul toog ci réseaux sociaux yi ñu toogoon naan dañuy tàccu mooy sama xalif général ak mooy sama yàlla ak mooy sama yonent ak mooy sama xutbu zamaan ak mooy sama lii man leen ne ni ma leen ko waxoon ci vidéo bi loolu génnewul Assane Diouf te seen arrogance bi ngeen yor ci réseaux sociaux yi du moy génné Assane Diouf tay du ko fa génné ëlëk lama leen waxon dem Assane bis buy génn diplomatie mom moo fay génné da ngeen di xam nu ngeen di waxe xam nu ngeen di ñaané waaw ndax amna na xamné xam ne koy interpréter na leen nexé nek ci vidéo yi nak di wax c'est très facile ngeen di am ñu leen di tàccu tatch yoy nak lu muy jariñoo waaw ndax kat ah pikini point com bañ génnee këram ngee ab site la du xaadim ngee ko génne du kenn te pourtant waxoon naa ko bu yàgg na lii mooy situation ba ñu weddi woon ma ca ñii nag ñëw firndeel loolu ma leen waxoon donc yéen gis ngeen ko te ginnaaw bañ gisee loolu man ma xool ne ba may wax ci Assane Assane nekk fi ci suuf hmm, may weddi ay waxama ah, yéen ñii yéen a taxawoon dem di jaay ay t-shirt ci turam ñu dessin ca photoom lu ne ñii di yónnee ay lance ay message yu ñuy dajale ay xaalis xaalis yooyu daje waaw te tey jii ñu ñëw won leen situation xaalis boobu ngeen doon dajale te Assane Diouf jotu ca ana xaalis ba man loolu duma leen wàcc bu jëkk ci kaw Assane laa toogoon ak Françoise Hélène Gaye léegi seen kaw laay yéeg te fekk wàccewu leen loolu ah ki doon attaqué démb Assane moo koy défendre tey waaw man dëgg ci laay dox ci laay wax réglé leen lenn l'a bëgg te dama ci insister parce que dégg gu ma fi ku fi wax loo xam ne si ah jëm na ci loolu loolu laa bëgg ngeen taxawal ko damay dégg Free Assane Diouf Free Assane Diouf Free Assane Diouf loolu ngeen di wax Free Assane Diouf nag bis bu Assane Diouf génnee dafa am néeg wala kër goo xam ne war na fa dem fanaan fa di fa yendu di fa live mën a wax ak yéen ñi di ay waaw donc. képp koo xam ne dajale woon nga ci ab dërëm laa la wax ci weeru koor lañ nekk ci turu Assane Diouf muy t-shirtam boo jaay wala dërëm buñ la jox nanga ko génnee yónnee ko ndayam bu ko jaarale ci loxoy ma sàmba wala loxoy ma demba na ko ndayam jot famem jot ko chantier boobu ñu leen wona ah, mu àgg ba Assane Diouf free boobu ngeen di wax ah bis bu free bu génnee génn rëbës googu day ñëw dugg këram du xàmmee sax kër ga fekk kër gu bees tax ngeen jël caabi yi jox ko loolu xaalis bi ngeen dajale ci turam mat na ko waaw te tey ji amul leen lenn lu ngeen koy fayee ludul nekk di xuloo di ko jiiñante seen biir kii lekk na kee lekkul kii moo ko jotoon kee moo ko jotoon yooyu génnewul Assane loolu tabaxul kër donc weeru koor ngeen nekk. képp koo xam lekk ci benn euro wala benn dollar ci xaalis yooyu wala benn franc CFA ah te defoo ko foofu yàlla du la ko baal dinga ko layoo ëllëg waaw ndax doomu aadama jee ma nga ne di sonn waxoon nañ ko ko tey ba muy sonn yéen defu leen ca dara lu dul jariñoo ko turam am nañu ci siiw turam am na ñoo xam ne am nañ ci ñu ngi ci yónnee seeni kër di ci def lu ne te moom waa këram jariñoo wuñ ko ca ndayam ba lu mu am lu mësta am kenn mës koo xam avant doomam nekk situation médiatique bi nga xam ne àdduna xam nañ ko yéen ñëpp xam ngeen ko ba kenn ku ne di ko bàkkoo voilà looy bàkkoo nag bu dee sa xalif la wala sa sëriñ la ah wala sa yaakaar la bu sonnoon da nga ko war a dimbali gannaaw demu leen rëbës gee gee wut na ngeen ko fa génnee ah xaalis boobu ngeen dajale na genn chantier boobu àgg di leen ñaan nag yéen ñi nga xam ne yéen a formé ay mouvement au nom de Assane Diouf ah ngeen gëm ko dama bëgg ngeen mobiliser wu yéen ñooñu kenn ku ne génnee dërëm su ngeen mënee récupérer la nga xam ne jaay nañ ko ci ay t-shirt ak yooyu ngeen boole ko ca kër gee taxaw Assane Diouf Frey bis bu génnee am fu mu dugg. man maa ko doon attaqué démb xam nga Assane musuma koo may dara nee naa la Assane saaga na ku ne ba mu des jëmm jii xam na lu tax yàlla dëgg lay atte parce que xam na ne man yéen ñiy jaay yéen a ko bëgg ku leen ku gën a bëgg ku lay wax dëgg amul man bu ma sañoon ña ma bëgg mooy ña may wax dëgg mais ña may jay ñooñu samay noon lañ donc ñu bare ci yéen ay noonu Assane Diouf lañ te Assane bis bu génnee dina xam ñan ñooy vrai ay noonam waaw yéen ñu koy bàkkoo ñu tuuti la cay téye ñu ci bare dañ leen xalab te tey yéen a ngi nii yéen a àndoon démb ak bërki dem nekk kenn benn bopp tey na ngeen séparé wu réseaux sociaux yi waxatu leen ci lu problème mu Assane Diouf lu dul kenn ku ne yaa ngi dàq deru sa moroom kenn ku ne yaa ngay accuser sa moroom yéen a ngay xeex seen xeexu bopp ngeen yor xeexalatu leen Sénégal xeexatu leen la Assane Diouf doon xeex bien que na mu ko doon defee man loo taxoon ma contre ko muy ay saaga musuma ci ànd ak moom démb duma ci ànd ak moom tey duma ci ànd ak moom suba na leer. bis bu génnee di saaga fi na ma ko doon dóore laa koy dóore dóoratuma ko parce que ma nga fële mënut a tontu man damay jox nit ki liberté mu mën ma tontu wala mu décider ne pat Assane dafa décider woon na pat parce que xam ne dëgg laa ko doon wax waaw te dëgg googu fees na tey yéen baadoole yi nga xam ne yéen a doon jaay kenn ku ne bëgg siiw bëgg fis bëgg wone sa bopp di jën inventer seen ay t-shirt ak yu ne ngeen wax ko xaalis boobu ngeen dajale ko dërëm Assane Diouf gisu ko ci famem gisu ko ci gis ngeen situation boobu leen pikini point com won voilà loolu seen gàcce la comme li ma ko waxee woon du gàcce Assane Diouf kese seen gàcce la yéen ñooñu parce que xaalis boobu da ko triandé da ngeen koo sàcc waaw te yàlla du leen ko baal ci weeru koor ngeen nekk na ngeen génnee ku ci jëloon benn dërëm laa la wax ah na nga fexe ba dërëm boobu na génn bu mu jaar ci loxoy ma sàmba loxoy ma demba comme ni ngeen def na kii recevoir Italie kee recevoir Amérique kee recevoir France kee recevoir Londres Londres kee recevoir New York fu nekk mais dërëm àggul Sénégal condition change wul wane ngeen fi euh, situation këram boo xam ne yaayam dund na ba asan maagi kenn musta am na wala ñàkk na léegi nag dem ngeen ba yóbbu ko situation boo xam ne médiatiquement boo xam dem nañ ba wone réalité ba nga xam ne waxoon nañ leen ko nangu leen ko gëm gis ngeen ko kon nag ku ci dañoon ab dërëm na génn ngeen dajale ko jox ko famille boobu na àgg ci yaayam Assane Diouf Frey bis bu génnee nañ dem këram waaw man nag mi ko doon attaqué man maay ñaan hmm, waxuma gouvernement parce que man gouvernement comme non parce que justice dafa Sénégal justice dafa Sénégal ni jappé Diouf la ni du du Ablaye c'est la justice même qui décide. ok bu ñu ko téyee am na lu tax ñu téyee ko bis buñ koy bàyyi am na lu tax ñu koy bàyyi ñaan nag ci njekk ci àdduna lañ ko fekk moo tax man ma leen di ñaan buñ ko mënee dimbali lañ ko dimbali ndax àdduna yar na ko won na ko boppam te lii rek lay jariñ xam ñan ñoo la bëgg ak ñan ñoo la bañ yéen ñi ko doon tàccu démb ak bërki démb yéen ay noonam parce que yéen a ko jaay ba mu dugg foofu yéen taxaw di ko seetaan tey lu ngeen ko dajaloon lekk ngeen ko moom jariñu wu ca fameem jariñu wu ca donc yéen ñi taxawal mouvement yi yéen ñi ko bëgg yéen ñi taxaw di ko bàkkoo tey kenn ku ne di wut ay tur ci kawam na ngeen fexe ba xaalis boobu ngeen dajale woon na génn treize quinze vingt mille euros yoo xam ne kër gee dina taxaw bis bu génnee xam ne au moins ah njariñ am na ci tekk ngeen dara waaw waaye taxaw fi ci réseaux di ko bàkkoo ah, man moom laa bëgg ak man moom laay sama xalif laag mooy sama wasilaag yooyu yëpp c'est ay problème yu taxawul fenn la kooku soxlawul loolu waaw nit ki buy nekk ci toor danga koy wax dëgg bu ci ànd ak yow tey baax na bu ci àndul ak yow suba dina ci mës a ànd ak yow parce que dëgg moo jëkk te mooy mucc li ngeen nekk du dëgg du yoon bàyyi leen doomu jàmbur ji ngeen di bakkoo waaw gis naa tey ku mel ne Ousmane Tounkara ñëw fi taxaw naan mooy représenté Assane mooy porte parole am Ousmane Tounkara kan moo la fal dégguma ndayam wax ko sëram wala frère wala avocat maître et la Diouf dégguma ñu ne la yow lañu nommé de man Assane Diouf ba muy nekk fi kenn laa xamoon koo xam ne musuma koo may dara muy Françoise Hélène Gaye dama ko doon dal ni ma doon dalee Assane Diouf musuma ko wàcc mais nag am na lu ma koy reconnaître parce que man nit ki lu mérité muy dëgg dama ko koy jox waaw kan moo fi taxawoon bi Assane Diouf di live ba yéen yi ngeen koy xam ba di ko topp kan la doon collaborer mooy Françoise Hélène Gaye moom laa mës a dégg ci live am Assane woo ko mu dem en live Assane di wax ak yéen ñii waaw Ousmane Tunkara musuma deg sa live hein Assane Diouf wax fa bi Assane Diouf di live musuma la deg ci yaa won ci bir pax mi gaayeen tay Assane Diouf dug ci kasso ba nga genn bëgg nek guru gaayeen bëgg créer ce mouvement créer sa ay nit di utiliser Assane Diouf o lieu ngay dam di dimbali yenen gaay ay prisonniers yo xam yo xam nga jeel lan mo fay am jeelu amerique yow yaane ko gëna xam ndax yaane fa jitu Ousmane Tunkara donc bala ngay reyante foofu ah reyantel Assane Diouf bi ngay bàkkool tey wutal noo mobiliser xaalis yooyu ah nga dajale ko bu mu jaar ci say loxo parce que dara wóorul na dem ci ndayam directement kër Assane Diouf boobu taxaw chantier boobu taxaw loolu nga mën a wonee ne yow Assane Diouf am na loo koy représenté mais pas du coup use taxaw fii di yuuxu naan damm nañ tànk ba des sept jours des sept jours fukki fan ak juróom Yo, yo, c'est des faux problèmes parce que il y jëkk a taxaw né, un Talibé Béthio momo moom moo attaqué Assane Diouf yaa ko wax live vie. taxaw nga fii di saaga bien que taxaw nga ay booy yoo xam ne si ay doom lañ wala sa moroomi doom lañ wala sa ay frère lañ ndi leen tere ay saaga bo pare yow nga ëlbatiku taxaw ci vidéo live yaa ngi fii ci YouTube di dagg ay saaga ndey yow leader bu lan nga. yow taxaw naan leader nga wala aspirant leader nga leader dafa am lu muy jàngale am loo xam ne doomu aadama yi nga xam ñooy ay fëlawasam ñu koy topp ci réseaux sociaux yi nga xam ne moom mooy sa arme actuellement dafa am loo war a jàngal yi lay topp Usman Tunkara ok waaye yow jiite leen amoo lenn looy wax lu no amna ay informateur ci bir rebeusak man ñamay informer. yow mën nga xam lu lu maître Elal Diouf xamul Mom may avocat di dem diko gis bis bu ne yow mën na ci Amérique jégué wo Sénégal xando fa yow même bo amone information yoy xamne garde yoy dañuy dem di dam tank Assane Diouf wal dañ koy gaañ la nga waron def avant tout waxuma la nga koy défendre mais en tant que citoyen bu dee am nga preuve ya ngay wax yor nga seen i numéro téléphone seen ay famille ak affaire yooyu yi ngay signalé naan xale yi mën nañ ci bon lii bu ngeen ko deful dinaa génnee tur yi fii dinaa ko wax mën nañ lakk seen ay kër yow yaa ngi yabal ay doomi jambour pour ñu dem lakk kër doomu jambour yeneen yow ban leader politique nga ban genre guru nga Ousmane Tunkara waaw yow boo amee preuve yooyu que ne yow garde bi xam nga ko ba xam famem xam lépp lan moo tax maître El Hadji Diouf xam moo koy plaidel mooy avocat mënoo jël document yooyu nga dox ko ci loxoom ah, moom mu dem utiliser ko contre eux défendre ko yow yaay nekk Amérique naan leen di leen menacer naan fii ngay taxaw di génne ay tur naan da leen jox ay famille ak yooyu seen famille lan moo ci seen yoon yow moom loo def lan moo ci yoonu sa ndey say frère walla dara garde ba bu xeex ak Assane Diouf xamal lan mo tax mu xex ak mom yow bala ngeen di genn bu fekkee leader ngeen leen maître ela Diouf di wax li tax du taxaw di wax ak yeen man ela Hadj Diouf xam ngeen duma ko may dara bu ngeen demee fi dégg ngeen dor yu mako dor ba Assane wacce mu nan guerrier bi man rek mom lay defaan ba paré né pat buñ téyé Assane Khadim ngey mo leen jëk taxaw wax leen yeen condition la Assane dundu yow Ousmane tougar xamoo dara ci Assane lan lay dundu ak lum dundul soob ngay def preuve yooyu boo ko amee génnee ko nga jox ko son avocat mu dem devant la justice teg ko garde yooyu c'est des citoyens comme toi comme mois bu ñu dëggee assan loo xam waruñu ko def dañ leen teg ci yoon mais tu n'as pas le droit taxaw fi di leen menacer naan leen dinaa dugal seen ay numéro seen ay photo yu famille yu kii yu ñàkk fayda yooyu kooku ban leader politique moo koy def ban leader moo koy def ban crédibilité nga am kan moo lay wax ne yow yaay porte-parole Assane wax ñu kan wala gars yi yéen ku ko ci am foo xam ne nommé nañ fa Ousmane Tounkara moom moo représenté assan sur la terre moom moo leen di wax dëgg ci assan na ngeen ko génnee ngeen jox ma ko mu gis ko baxe leen ma ko bu boobaa dinaa génn man balu ko ax mais dégg guma ko kenn laa fi déggoon bi assan di live muy Françoise Hélène Gaye dama ko doon ay xeer mais li ma koy reconnaître mooy loolu Assane ba mu ci suuf biti am liberté live comme ni live hein. François la doon woo di wax ak moom wax ak moom ci live am live Ousmane Tunkara mosul ko fi dégg loolu nekk ci otoom boobu toog di ñeent bu sax mu naan la ko teg ñàkk fayda yooyu kooku ban leader nga waaw sa ay problème gaayen waaw asan douf boko ko bëggee génnee xam nga mobiliser le gaa hmm ñoy sa one million yoy ha ah, na kenn ku ne génne 10 euros ha ah, ngeen taxawal ko ngeen dem chantier ba ngeen agalé ko loolu mom mo lay jox crédibilité touti té boy jox info bu dee yow improviser nga sa nango né yow nangu ko ci ay françois ak nangu nga ko ci képp ko xamné si mu représenter Assane Diouf ya ko représenter officiellement ah, ya wara jité ci loolu ba loolu taxaw Free Assane Diouf c'est égal à que Assane bu génnee ah xam fan lay jëm ngeen jox ko caabi yow mun fa dugg si sinon nga ne pat booy régle nga régler sa mouvement sa bopp voilà te génne ci Assane Diouf Assane Diouf musuma dégg muy wax sa ay problème musuma dégg mu am problème di la ko jooy donc doo nekk ba mu nekk ci jeel ba gaayan nga ñëw taxaw fi di ko bàkkoo wala nga di ko use waaw kii nag dama koy défendre tey maa ko doon attaqué dem mais maa koy défendre tey mu neex leen ak mu naqari leen man ci dëgg ga laay wax Assane bu juumee damay dal ci kawam boo juumee damay dal ci sa kaw Françoise mais bu juumee damay dal ci kawam waaw mais li ma koy reconnaître mooy elle était la seule boo xam ne doon na nekk en contact Assane Assane taxaw na fii ñu accuser Françoise assan ñëw weddi ko yow nag mosuma dégg Assane ju wax lu bokk ci yow donc xamal sa bop waaw dégagé ngeen Fambe dégagé na bopam François lima lay wax dégg naa sa live ngay ñaan le président nit ki nag bul def yëfu dof ba quoi parce que dof ba da doon taxaw ne weer wi feeñ na de ñu ne waay mais dof bi de léegi nit la mu toog ba yaa ngi daan ne ak beese ñag ba ñu ne ah kon wérul mooy loolu yow nan nga mën a ñaane le président taxaw ne ko yaay président Assane Diouf yaay sama président yaay président ñëpp ba pare ah. mang lay ñaan li ba pare ëlbatiku xass ko ba mu rap mais kooku bu la naron may sax da koy nangu soy jappalé Assane bo munta génn ci problème Assane boy ñaan le président wala ngay ñaan la magistrature avant tout ñaan len ci ñek ak teranga néna Asan la Assane Diouf bis buy génn samay wax day guddé alway du lu lu koy génné moy diplomatie du sen arrogance yi du ay yuxu